تُمْرُونَ mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi c 3 mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñuy jël ci loolu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun dëgg yàlla ku xool bi ñu koy commencé ak fi mu egg fi ne nii nga xam ne liggéeyal Serigne Touba rek moo wóor te ndaw yi ci nekk yëpp ku ci nekk sa xol nga ciy deme ak sa man mën dem nañ nag tey def nañ 99 mbana yóbbu nañ ko ci daara yi comme ni ko Serigne Cheikh waxe woon ñu defee ko noonu lépp di ci ndigal ci ndigalu Serigne Cheikh Moustapha Mbacké loo junior jiite ko. ñun ñi ñëpp topp ci ginnaawam ñu ànd ak moom liggéey bi comme ni ma ko yàgg wax rek liggéey Serigne Touba moom amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ci kaw mu dëggu te gëm naa ne li lu dëggu la ndax ñi ko bokk ñëpp séq ko ku ci nekk amoon nga loo mënoon a defi te defoo ko danga bàyyi lépp ñëw kon gëm naa ne kon lu dëggu la démb dañu fanaanee toggu jigéen ñi ci waañ bi lañu yendu fanaan ba bët set nelawuñu kon loolu damay jàpp ni ngëm-ngëm la ak bëgg sëriñ bi ñu leen di sant nag ñoom di leen gërëm cant gi lépp daal jigéen ñee ko moom ay jàmbaar lañ taalibi Seexul Xadim lañu amuñu seen fay yàlla na leen borom bi su fayal boppam ñun daal ñun daal kontaan nañu wax nag mënut a ndax sooba tey ñi nga wax mhm. waaw loolu li ma ci mën a dikk mooy loolu sama cadre liggéey la ndax doomu aadama bu nekk bu xëy war nga am ci looy yëngatu ak lu mën a doon yaa xam dangay jaay beñe wala da ngay jaay màdd wala da ngay jaay daqaar waaye lu mu doon lu liggéey la nit ku ne dangay xool sa xam-xam ci li mu jëm nga yëngu ci loolu. xaj na nag yàlla moo ma bindee may liggéey ci wàllu entrepreneuriat mhm, ma ci liggéey di sant yàlla. man nag euh, mën naa ne liggéey dañ ma ci yar ndax tey sama entreprise bi ma am sama papa moo ma ko ubbiloon 2009 ba 2021 di tey loolu kon boo ko xool dafay nekk kon 12 ans léegi nag ku sa bàyyi jël entreprise ubbil la ko nga nekk ndaw kon kooku soññ na la kon su ma amee jom. war na maa xam ne moom fii la tegu ma topp ci ginnaawam li may wax sama morom yi nag moom maa leen gis ñëpp tamit ñu ngi góorgóorlu wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu waaye nañu gën a góorgóorlu surtout jigéen jigéen moom boo bañee ku la yàpp te nga bëgg foo taxaw siggi nit du taxaw fenn ba nga wàcce say bët da liggéey ku bëgg një teraange àdduna liggéey du nga koy may leen du ko maye ndax ay tappale jëmul kër boo ko defee at ñaari at du man ñett de waaye liggéey nag moom euh, xaw ma nu ko olof yi waxee <laughs> liggéey daal mooy dëgg man daal bi ma ko ñemee man xam naa ne liggéey mooy dëgg ndax am su soxo làmb sa poos faj ko jar na liggéey ba dee loolu nag Mbàkke <laughs> waa Touba am nañ fi ay projet yoo xam ne mi ngi ci suñu xel ndax bëgg nañ fi def ay logement mi ngi ci suñu xel maa ngi ci waxtaan sama yenn partenaires yi xam naa bu fekkee dem nañ ba suñu borom sottal ko dinañ teg seen bët comme ni ma ko defee ci yeneen dëkk yi. daayira bi ku ci bëgg a adhéré ci góor ñi jaaral ci junior loo bu dee ci jigéen tamit jaaral ci Moustapha Cissé Lo muy junior. loolu kon lu ñu toog waxtaanewaat ko la ndax du nekk waxu tale mais ñi bokk ci daayira bi xam naa bu li jàllee dinañu benn groupe boo xamante ni si góor ñi jigéen ñëpp ci biir la ñuy nekk ñu waxtaane ko ñu xool ba xam chaque fin du mois dañuy daje. wala chaque fin du mois nit ku nekk kat war nga dugal fi sa dërëm wala sa ñaar dërëm ndax tey mën naa am kat junior mën na génne ñaar fukki dërëm joxe ko soxna Fatou tey mënut a génn ñaar joxe ko ndax mën naa métti ci moom ndax doole yamut mais nañu xool daal nuñ ko waxtaanee ba ku nekk chaque fin du mois li nga mën a génne nga génne ko ñu xam ne lii mooy sasu su bi su ñu demee nag ba at mi ñëw ñu xam ne tey lii la benn soxna Fatou su ma nee ñëw sasoo ne sasoo naa saako ceeb mu génne ko sasoo ko mais teewul tey lañ ko sosoon ci daayira bi wàccoo na ko su joxee saako ceebam moom la neex ndax sëñ bi. bëgg nañu xam sa secret euh, waaye sa ginnaaw gis euh, sama secret mooy euh, nekk taal bi Serigne Touba ndax nekk taal bi Serigne Touba rek titre la. macha allah Euh, année yi la passé dañ doon gis ñu ngi doon toggee li nga xam mooy togg yi ci yeneen kër ren ñu andi ko fii ndax loolu mën ngeen ci andil ay leer waa olof yi dañ ñi ku yokk cere doo dolli ñeex te dañuy bëgg a yaatal ndax lii ñëpp ko bokk année yi année yi passé ñu ko defee fii ñu ngi ko daan def kër Serigne Saliou Serigne Alaaji Baara mais comme que dañ ko bëgg a yaatal ñu ni kon ren nañ ko indi sama kër bu déwénee dañ ko yóbbu kër keneen noonu lañ ko def mu wër ubbil nañ ko ñëpp tëjuluñ kenn suñu bunt ndax liggéeyu sëriñ Touba géej la ñëpp a ci xaj. yamul ci togg xel ko mi ndax ñi ngi yëngu ci wàllum social ñi ngi faj nit ñi feebar ñi ngi dimbali néewi doole yi ñi ngi def leneen loo xam ne presse yëgu ko journaliste yëgu ko ba teguwu ci. gudul groupe bi ko bokk rek mënuloo ko xam. li ñu ma bari na li ñu ma li ñu dëgg dëgmal bari na ginnaaw li jàll na ci jàmm muy ndigal luñu Serigne seex joxoon mu jàll ci jàmm li ci des mooy yóbbul ndongo yi li ñaan yóbbu chaque année mooy bool yi mbana yi yëre yi matelas lu ne lañ fi yóbbu Xelcom comme que lii jàll na moom loolu lañu ñu dëgmal ci xayma ndax nag moom kenn du ko wax